mbokki internet yu Nettali info dalee nag jàmm Sénégal foo leen mënte nag du Sénégal c'est toujours un di vous servir di leen partager information di leen wax naa ne képp kuy gànci page bi te abonnéegul mën na abonné dugal ci vidéo mbokki ñu koy njëkk a jot mbokki xibaar dañ koy daan lu ci mille francs téeméeri junni ak juróom fukk ak juróom benn kii di Sa Thiès nag un million cent vingt mille francs million ak ñaar fukki junne ak ñeent moom la lii di CNG daal di daan kii di Sa bu ñu jeexalee foofu ñu dem ci atu yéenekaay bi di Samb doon làmb moom it ñëw ci diggante Sa Thiès Reug Reug waaye laataa ci xët mu njëkk ba tey sunu làmb ñu mën caa liir lii nag mi nee na Ferveur à l'arène national dimanche dernier lamb dékki na donc muy diggante Sathies ak Reug Reug ñu mën ko liir ci xët mu juróom-ñaareel bu journal bi di sunu lamb nag dana ci sunu lamb ñu mën caa liir Bébé son combat du 12 mars à Kaolack nee na Baye Mandione n'a aucune sens moom Bébé Saloum nee na kii di Baye Mandione amut benn sens ci kanamam ñu ngi ko combat bi ñuy xaar le 12 mars pour célébrer la femme ce mercredi Mbacké Faye Madji Madji a l'honneur donc nag kii ba ci ñoom dimanche bi le man ngeen baal ma sax le bi lee nag tey ñoom ñoo am honneur ci li nga xam ne moom ñu duppee 8 de la femme diggante Sa Thiès ba tey journal bi di sunu làmb ñëw na ci nag ak annoncé audition bi nga xamante ni ñaari mbër yi la tey jëlee amal nañ ko fële ca CNG suba ak tey ñu war leen fa audition nag nee na ay sanction yu métti métti nag mu ngi nar a ci seen kaw ñoom ñaari mbër yi la mu di Sa wala mu di Reug Reug jàppale la ba tey moom tamit ñëw na ci amande yi nga xamante ni CNG teg na ko ci kaw ñaari mbër yi la mu di Sa mu di Reug Reug kii di daal di koy daan un million cent vingt mille francs CFA bu dee Reug Reug xibaar bu jokk ni ki di wax naan kii di Sathies nag CNG daal dina ko jox victoire waaye loolee ñu leen rek amul nekk lu am gis ngeen sax CNG wét lu ñu xam mooy dugal na recours fële ci CNG CNG am na quarante huit heures ngir vider recours boobee ku mënees naa xaar ni ki tey fekk suba daal CNG verdict ci combat bi nga xam ne dox na diggante Sa Thiès ak Reug Reug ci fàttali nag ca combat moom ka ñu jox victoire ca arène nationale ca biir géew ba ka arbitre yi jox victoire yëkkati loxoom moo di kii la di Reug Reug waaye nag Sa Thiès nag moom jàpp na ne adversaire am di Reug Reug def na karap yu ci biir làmb jëm ca songo bu njëkk ba nga xam ne songo nañ ko doon tel bi ko arbitre waatee na ko kaay bëree bëree na moom ba mu jàppee ne daan na bay dem waaye nag gannaaw ba ak Reug Reug bu jam ndam ci kawam arbitre jox victoire Reug Reug Sa Thiès moom moom ak mbay mbokkam ñu jàpp ne seen adversaire di Reug Reug def na lii di karap yu ci biir làmb ji te kon ñoom dañuy déposer recours noonu sax la ko defee xaarandi nag ba CNG di vider recours ba ak ban dogal lay jël ci diggante ci lii di Sa Thiès ak nga xam ne moo di Reug Reug jàpp ne nag lu ci mën taxaw ñaari mbir daa tey jilee ñu ngi leen di xaar fële ci CNG ci ab audition gannaaw la nga xam ne xew na ca làmb ja ay nag daan yu métti métti mënees nañu ko fa jëlee ñoom ñaar ñi leen bu leen CNG daggee xaalis Sa Thiès ñu dagg ko lu toll ci un million cent vingt mille francs CFA des ànd nag seen audition ba lan moo cay tukki ak recours bi nga xam ne moom Sa def na ko ci cadre appui yi muy wax ne adversaire di Reug Reug def na ko ba xam ban dogal la ci CNG di jël fi mu daal li leer ba leer mooy jàpp leen ne CNG joxeegul benn verdict vidéogul recours Sa